stratégie politique benn Benno Bokk Yaakaar je vais euh, <laughs> réduire l'ex justement l'opposition à sa plus expression et ça si tu le fais tu da ngay créer coow ci sa biir kër nguur da nga war a am da nga war a xam ne euh, suñ borom dafa dafa sàkk àdduna teg ko ci xam-xam xam-xam boo ko jëfandikoo planifier ko organiser ko da ngay am résultat lan moo tax tubaab yi gën ñu développer pourtant gëmuñu yàlla mais parce que dañuy fonctionner sur des principes divins mooy la science moo yor àdduna xam-xam ak liggéey ak dëgg loolu yor àdduna boo ko defee da ngay avancer peu importe gëm ko ñàkk ko gëm mais soo nekkee ci bopp réew mi nga ne yow xam-xam nañ ko teg fële nañ def pexe politique dëgg on le dit de temps en temps yërmande liggéey on le fait quand on le temps li ci des nañ politique mais loolu boo ko yoree réew mi. nga dem élection sentir ne population yi ñu ngi lay analyser di la di la observer mais de plus en plus ñu ngi commencé gis beneen discours commencé dooleel keneen mais yow koo xam ne kii tey bu taxawee sonal ma mën na ma andi problème nga ne naa ko na na naa xeex ak moom te xeex bi du yem ci débat politique du yem ci débat politique ça va toujours bifurquer en un ou en autre sur des questions juridiques et c'est dommage et loolu mooy indi trouble yooyu nga xamante ne nii day sonal opposition bi mais ce que l' état ignore mooy nga trouble yooyu da koy désorienté parce que day jël tout l' appareil d' état di ko concentré ci yoo xamante ne nii amul njëriñ et là l' état perd le focus sur l' essentiel l' état perd le focus sur l' économie l' état perd le focus sur l' agriculture léegi suñu exportation on dit que le Sénégal exporte on exporte de l'or on exporte beaucoup d'arachide on exporte beaucoup de phosphate mais li ñuy exporter ci phosphate c'est une entreprise étrangère qui le fait or on exporte du brut arachide c'est du brut au lieu de se focaliser sur ces choses-là on ne le fait pas et on perd on investit beaucoup trop de temps sur comment contrôler des opposants et ça ça prend de l'énergie ça prend du temps et ça demande beaucoup d'ingéniosité te état war na tal leneen dudul loolu mais est-ce que jotul xam nga maa ngi lay rappeler cinq 2012 comment l'opposition de connivence avec les syndicats euh, a essayé de, de, de, de, de présenter l'image d'un Sénégal économiquement désastreux. Mm-hmm. ñu syndicat enseignants yi laxasu ci politique bi di positionné wu. Mm-hmm. bloqué école bi euh, commerçant yi seen seen syndicat yi laxasu ci prix saaku ceeb bi doon jar treize mille ñu yóbbu ko cinquante mille créer ay pénurie créer inflation. Euh, yenn patronat yi def dans l'opportunisme di di di di di peindre le Sénégal euh, sous des sous des sous des traits scabreux mm juste parce que on veut faire tomber un régime Macky Sall ñëw ñu delloowaat njëkk yëpp mhm. Macky Sall ñëw ñu ne leve nañ moo d'ordre yi mhm. comme alors que tout le monde sait que c'était c'était c'était politique c'est des gens qui se positionnaient mhm. loolu moom moo ñu naroon a nekk di arriver en deux mille deux mille euh, vingt trois c'est-à-dire pendant deux ans trois ans je n'absous pas le régime. Mhm. ci ay erreur am yu mu def mais pendant deux ans trois ans aussi une certaine opposition a voulu présenter le Sénégal sous un visage euh, scabreux une certaine opposition a voulu faire en sorte que les partenaires techniques et financiers du Sénégal se désengagent, une certaine opposition a voulu faire en sorte que les investisseurs doutent de la stabilité du pays et puis on a mis beaucoup d'argent pour des campagnes de diabolisation à l'international, oubliant que peut-être que 2024, yow mii di def loolu tu vas hériter de ce pays-là et tu vas devoir reconstruire est-ce que jotul aussi ci suñu combat ci seeni combat politique Euh, ñu am une démarche républicaine euh, salvatrice boo xam ne du ñu attaquer les fondamentaux de la de la République du ñu attaquer les fondamentaux de la nation. mais Maimouna ku bëgg a dee da ngay wequ. c'est-à-dire. c'est-à-dire man boo mooy ne danga may xoj mais dinaa dinaa yëngatu. yëngatu en détruisant tout. ma may mun a booy waaju suffoqué da ngay xool ndax euh, sa robe bu rafet bi nii non <laughs> soyez sérieux mais yëngatu en en détruisant tout xanaa xamoo ne kuy lab boo ko joxee jaasi mu tëye ci nañ nañ nañ cultiver la paix ki indi jàmm ci kër mooy wéyjur yi ñoo njëkk a yor jàmm et j'en pour pour pour pour faire un appel au président de la République. quel appel que mu que mu apaiser réew mi on en a besoin. réew mi apaisé wul actuellement. non non franchement Sénégal est, divisé. Sénégal est divisé. même. et ça on en a pas besoin ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay on est sur la même. mais est-ce que Macky Sall rek moo war a c'est sa responsabilité. mais est-ce rek moo war a apaiser. moom rek mais moom moo mën a commencer. il doit prendre sur lui. c'est le président de la République de tous les Sénégalais. il a été à la tête de ce pays pendant douze ans tous les na yërëm nit ñi xam ne moom su bàyyee du ko wàññi dara. su su bàyyee su bàyyee euh, li mu téye. lan la see. non réew mi dafa tendu. non mais mais de non. Ah, en fait lan la war a bàyyi. xam nga waxin li ñu naan wax bu du yegg wax bu yegg moom baaxut. parce que euh, waaw parce que des fois day day day day détourner maanaa wax ci mais ce que je veux dire mooy état d'esprit bi mu war a am dañ ko koy ñaan man dinaa ko ko ñaan sans problème. mais bon état d'esprit la war a am lan ngay xaar ci moom. na xam ne le plus important c'est la paix sociale na xam ne le plus important c'est qu'on est ce qu'on soit dans une démocratie na xam ne le plus important c'est que na trouver nañ trouver ensemble des consensus. on n'est pas en démocratie non on est quand je dis on est en démocratie mooy mën nañu am déeg mën nañu waxtaan ba am parce que démocratie loolu lay jëriñ ah. mais yéen mais yéen woo nañ leen waxtaan ngeen ngeen ne dama. non mais mu ne mooy li may wax mooy. <laughs> woo nañ leen kaa leen ñu waxtaan ngeen ne ñëpp. ñetteelu ñetteelu dañ noonu dañ ne nañ ci lan la ñuy waxtaan. waaw. ñu ne non non yéen laaj leen ci lan ngeen da ngeen ne damu leen. waxtaanu truand la. tu parles du cabinet <laughs> dañ leen ne wax leen ci lan la ñuy waxtaan bu ngeen ñu ko waxee. non Barthélémy Diaz moo wax loolu. non non non terme de référence yéen da ngeen ne. déglu leen non non non ñun waxuñu loolu. franchement ñun waxuñu ñun dañ ne. bien que ne am na deux discussions yi fi am ça n'a à rien. ñu ngi gën indi troisième discussion. léegi au moins wax lañu ci lan la ñuy discuter jusqu'à maintenant on l'a pas ñu ne leen ci processus électoral bi. non waxuñu lu leer waxuñu lu franchement il y a eu aucun document officiel sur le contenu du des discussions avant débat bi. foofu moom il faut la ne kaa ñu waxtaan. mais non xaaral rek Moussa ma la ne Moussa kaa ñu waxtaan da ngay toog ci téléphone naan man lu ñuy waxtaanee doo ñëw ba ñu toog. déedéet dama naan lan la ñuy ma ne la kaa ñu waxtaan dama la soxla ñu waxtaan ci réew mi doo ñëw ñu toog. après nga doog a découvrir les contenus bu dee da nga bi bu dee ma ne kaay ñu waxtaan ci réew mi fi na ma gis na yow sa kër nga may waxtaane nga ne ma waat ñëwal waxtaan ci réew mi gis na yow sa koñ nga may waxtaane mais boo ma waxatee kaay ñu waxtaan danaa leen ne bii paa nag di nga ma wax lan la parce que man ñëwuma pour waxtaan sa kër ñëwuma pour waxtaan sa koñ. mais xalaatoo ne boo leen demoon ci waxtaan bi nga xam ne ñoom fa Sall dem nañ ci ba ngeen unir leen. Mhm. que la situation aurait été différente. je sais pas mais une chose est il est toujours temps pour bien faire. il n'est jamais trop tard pour bien faire c'est jamais trop tard pour bien faire. da bëgg da ngeen di joxe loxo. pour ñu woote man maay wax sama kii li ma xam ci politique ak li ma xam ci man dama gëm ne Sénégal fi mu toll nii on ne peut pas continuer comme ça Maïmouna quel type d'élection on risque d'avoir mais waxtaan wees na Moussa. du baax. à trois mois du processus il ne peut y avoir du ma sa wees. Euh, de sa de sa non man waxuma sax ay waxu élection ce que je veux dire mooy apaiser lu baax lu baax. du mës wees may ma. alors apaiser réew mi ça passe par quoi. ça passe par que le président Macky Sall mu xam ne sénégalais yi sonn nañ division bi ëpp na te ñu ngi jëm ci échéance yi nga xamante ne nii ala kulli al dafa war a génne loo xam ne pendant les cinq ans. à venir ci loolu lañ nar a évoluer. mais yan acte te loolu résultat wu élection yi ku ko mënti gagné ëllëg dafa am solo ci yow. mais yan acte la war a poser. Mhm. pour réew mi apaiser wu. loolu xam na ko. il n'est pas président pour rien. waaw mais yow tamit yow am na loo bëgg. non man tout ce que je dis c'est que na na apaiser après lu ma may man c'est pas moi je suis pas le président de la République je suis un